ñu tej pass boobu kon dugg ci li nga xamante ni di mm-hmm. politique dinañ mm-hmm. ñëwaat ci développement yu bari bari ak mm-hmm. jigéen ñi mais bi nga créé mouvement bi da nga wax ni da nga mouvement wax ni ko taxawal ngir dox dem ci jël lii di mairie bi ba tax ngeen nekkoon candidat euh, lan moo la motivé ba nga dugg ci wàllu politique waaw euh, c'est simple nag man bi ma ñëwee euh, li ma njëkk constat bi ma njëkk a def c'est un peu bizarre nag bi ma ñëwee université après yàlla def ma jiite nawetaan yi jeunes ni ma jiitu ma ñëw woo maire ni ko dama bëgg a daje ki xel si mooy le président de la commission jeunesse sport boo xam ne am na ma ni mais ñun ñun ndaw yi commune am soixante di ñu jiite. Hmm. problème xool liste bi liste conseil municipal bi boo xoolee ki ci ndaw soixante ans la wala wala wala soixante cinq ans ay quatre vingt soixante quinze ay ay màggat rek fi nekk nan ma baal nag ci waxee na mais c'est la réalité quand même. Hmm. mag baax na. waaw moom man man daf baax na gone quoi mais na ànd ak gone hmm. ci laa jël engagement ferme ni man je vais daa jàppale le maire parce que on a besoin de son expérience mag hmm. mais yàlla baaxal na ko xam na lu bëri am na expérience ba quatre-vingt-dix may hmm. mais dama ni mag mi su ànd ak xale bi je crois que duo bi ci lay gën a amee sens après ci leen def engagement ñoom politique nekk université aussi di ndaw intégrer le mouvement des élèves étudiants républicains muy nuyu aussi le coordinateur Moussa di nuyu ñëpp mais bi ñu aussi dama ni est-ce que Dakar man bëgguma kajoor kajoor nekk Dakar rek di fa wane seen talent. Mhm. di fa politique wala ñu am fa alal toog fa. Mhm. nan retourné ci la ci la nii nan ñëw Ngandiouf xam nga commencé di politique ànd ak Ndiaye mi xëy si on a fait tous mhm. ak ñeneen ñu dem ba yàlla def ñu nekk ci mairie bi li nan l'appétit vient à mangeant bi ñu toppee ci ginnaaw maire pendant sept ans nag wax dëgg yàlla dem bitim réew xool lu bëri ci lan nag voilà. Ngandiouf nag a besoin du 109. Parce que Maire, il a, il a fait ses preuves. 90 mhm. ans, 90, 90, 2000, presque 30 ans, je crois que venons de Foutou, deux mois, nous devons faire. Il a une en toute responsabilité. Autant que maman, au début, et un jour, ben harma yalla tan ko honnêtement nous encourageons aussi xam na nak politique dafa day wax bi ne ba ci nak euh, changement am xam nga xam nga influence am xam nga kenn ku ne changement, après moom itam mu décidé continuer mais itam mu décidé continuer. parce que bi ma ko waxee il était en phase avec man ci décision bi ma jël. donc nak té man nit la ko xey ci suma ma engagé wax dëgg yàlla day xawal euh jafé mais je préfère mourir que d'être ci ginnaaw. Mhm. ci lan dem nak wax dëgg yàlla te bokk na décision yi xey yi ma gëna a marqué sama àdduna maanaam bu fekk élection yi suba la. Mhm. Euh, je ferai la même chose. parce que li am solo moy ñi waroon andal ba légui ñoy la andal day yokk mais wax dëgg yàlla amul kenn ko xey ci ko ànd nag man. am ak man ni xaar ma yàlla parce que man dama je suis très ak xalaat damay déglu ñëpp quoi damay accepté ñëpp ci lañ dem wax dëgg yàlla xam ne Nganj soxla na ay doomam hmm. soxla na développement parce que Nganj dafa deltu ginnaaw booy xool la commune bu xëy si c'est trois cent six kilomètres carrés am population yu ndaw te ba léegi nii mosoo fàttaliku ba ma juddoo ba léegi nii ben ministre de la république wàcc ngañ sax def un visite de terrain wala séance de travail musul am bo xolé on est oublié partout mais lolu est-ce que continuer rek ndax dafa am bind kat bu wax nan est-ce que xam na résultat yi ni am. Hmm. bu fekke li ndan def lañuy def li ndan wax la ñu wax te man xam naa ni ñi fi nek li ndan wax la ñu wax li ndan def la ñu wax mais est-ce li ndan wax ak li ndan def jëlee na commune bi fanere at man je dis non parce que bo xolé ñu nu wër sur côté yu bari ñom ñono ñu jiitu bu dee ci électrification ñono ñu jiitu bu dee ci santé ñono ñu jiitu bu dee ci poste santé wala ay ambulance ñono ñu fi may waxee yow le poste santé nga ñu na pas d' ambulance hmm. et cetera xam naa leen ñëw ci wal santé hmm. lool nak la top mané pour mu dak nak il faut nga bok ci ñi décider hmm. yàlla def nak ñu dem ci am am une participation honorifique parce que ñun élection yi bi ñu koy préparer c'est à 3 mois des élections ci leen décider génn xam nga dem wuti récépissé parti jambour ñëw xam nga ak moy préparer bind programme lepp ci 3 mois ñu ñew yalla def ñu am 5 conseils wax dëgg yalla ci ci ci ci ci loolu loo xam amul ben parti bu la couvrir wala ben parti bu la jox 1 franc wax dëgg yalla dama ni lolu il faut il faut le faire te bo aussi ñun on n'était pas programme non parce que ñu sun suñu électorat mm. jeunes da ci ëppoon te jeunes yi ñu si Dakar Touba la ni voter le temps que ñu ñëw changé daf xawoon a wees. mais def nañ ci liggéey boo xam ne ci jàpp nañ ni bu doon suba suba la wax dëgg yàlla. Ah, du nu du nu bett ci ci benn côté daal. Mm. di remercier aussi ñi xëy si presque mille personnes yi nga xëy si voté nañu di leen remercier wax dëgg yàlla te am na ñoo xëy si sax xamuñu nu dañuy dégg jël seen xaalis di cotiser parce ah, que pour la première fois. li mm. ma wax nii je parle sous le contrôle du directeur de campagne. ñu dem élection ñu ubbi kañat Wave Orange Money nit jël seen xaalis di Kajoor ku ne xam ne dinañ xaar état financé. Mhm. nit ñi ngay jël dem ci dëkk di maye xaalis mais ñun au contraire nit ñi ñoo doon cotiser seen xaalis dina ko jox. Mhm. oto yi pratiquement on avait plus de douze oto wala dise oto te looyuwul si yéen nit ñi ñooy jël seen oto teg. kenn ku ne kenn ku ne andi ñu mhm. def wax dëgg yàlla euh, ci ambiance ci respect te lu ñu waxan ci dëkk bu nekk mën nañ faa jaaraat waxaat ko lii nii solution li fi nekk nii il faut ñu change ko te ñoom sax au fond de ñoom dañ ko war a parce que nag Kajoor dañuy vote affectif hmm. euh, cosaan wala sama wëllëre papar et cetera te yooyu noonu il faut que ñu xam ne. moo xaw handicapé moo xaw a handicapé le développement du Kajoor. Hmm. te loolu baax na hmm. mais gis nga développement ak souveraineté gis nga kenn du ko négocier donc koy arracher par la force parce que foofu la réew mi toll foofu la àdduna bi toll il faut que li na alternance générationnelle mënul ñàkk jamono ji Kajoor. bu ñu la déggee délai bi dafa gàtt moo tax sax xaj na li nga bi ndax bi nga teg. Mm-hmm. mën ngaa lu bari kay parce que ñun on avait prévu de dem dem population yi. Mm-hmm. pas caravane. Mm-hmm. mais def des rencontres B2B. jàkkaarloo askan bi mais boo xoolee sur cent sept villages li ñu ko def sax bariwul wax yàlla euh, mais. challenge la woon. Mhm. il fallait que ñu mettre mettre teg dara ci terrain bi. Mhm. ñu doon wax naan mën nañ ko mënuñu ko ils vont le faire mais alhamdulilah def nañ ko. def nañ ko avec honneur ak dignité. te amul benn yoon boo xam ne si hésite nañ ci te dama ne bu fekkee suba la on va le encore parce que gëm na ni c'était un engagement citoyen mais noble aussi te ñëpp xam na ni on a marqué l'histoire politique de la commune parce que élection yàgg na fi am mais programme teg def un lancement public Hmm. wax dëgg yàlla moom mu ngi soog ak ko ngañ def loolu mom même ñi ñu gëna a compte sax xam na ni wax dëgg yàlla am na innovation yo xam ne si wax dëgg yàlla ñun ñoo ko fii ñoo fi andi la franchement voilà ñu ñëw ci situation wu mais commune bu Ngagne Diouf hmm. gis nañ ci fan yépp dafa xaw lañ mën di wax parce que euh, hmm. bu dee ci walu santé bariwul bu dee ci walu infrastructure gis ñu lu bari euh, éducation bari na ay problème effectivement éducation rurale bi sax xay da dañoo ci li nga xam programme PDC bi bari léwu leen ci euh, lan mooy solution bi. merci beaucoup yaa ngi soog a nag pratiquement ñëw ci li waral sax waxtaan muy commune Ngandiouf parce que su may wax ci Ngandiouf ku ma comprendre sax dangay xam ne kii il parle avec le cœur. Mm. parce que man maa jël sama jeunesse sama lépp consacré ko exclusivement pour la commune de te du ma ci regret dara d' abord nan wax ci Ngandiouf. Mm. d' abord fan mooy Ngandiouf. Mm. Ngandiouf bul fàtte ne commune la boo xam ne dama koy faral di wax bu mënoo tudd Sénégal. te boolewul ci commune ni nga jëf loolu nag su ma ko waxee eh, am na ñu xam ne dina leen jaaxal ndax bés bu ñu tudd Sénégal te kenn tudd commune Ngandiouf mais day dañu am parti yoo xam ne si commune Ngandiouf kenn mënu ko bañ a tudd hmm. wala loo xam ne commune Ngandiouf la xawee te kenn mënu ko bañ a tudd hmm. dama ko expliquer si le plan culturel mais hmm. aussi si le plan religieux foofu laay foofu laay gën a wax damay ñëw sur le plan culturel dañu Sénégal ñu ne suñu héros national kan la ñu ne Lat Dior Diop la Lat Dior fii la fekk baax fii la ko fale maanaam 33 damel di Kayoor yëpp mbul gi la leen fale. Mhm. mbul ñu ne fa nekk ñu ne mbul ci commune Ngagne Fula am. bu mhm. la bokk kon le héros national on l'a introduit ici dans la nga de Ngandiouf mhm. kon Ngandiouf kenn mënta wax Sénégal te buloo ko histoire kooku ñu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax mais ñu ñëw ci aussi sur le plan religieux ñu ni kat euh, Sénégal euh, confrérie yi ëpp doole booy xool man nga ni euh, murit la ak tijaan di profité du ñuy kër diine yépp mais ngir El Hadj Malick ñii la université fi mu doon tàggatee ñi nga suñu ay kàngam ñii la fan la ñu ne njaar ne la ñii la njaar ne ma même temps njaar ne googu fi la daje woon ak Serigne Touba la ñu ne njaar na fa la nekk ñu ne ci commune Ngagne fa bof kon tey jii mënoo dugg Tivaouane te waxoo waxoo njaar ne mënoo dugg aussi Touba te waxoo nga ñëw ndax Serigne tubaa ak El Hadj fii rek lañ daje mu njaar ne te njaar ne bokk ci nga ñëw nag ci Touba damay faral di wax ni Touba bu fekkee ne mbaar la wala bâtiment la ma ni poto yi am na poto yoo xam ne si commune Ngandiouf la foofu laay ñëw ñu ni Serigne Massamba jub Sam mhm. ñu jiitu ci kër Serigne Touba la bokk Serigne Massamba Diop Sam fii la dëkk Daaru Sam à tout près Daaru Sam bokk ci commune Ngandiouf suñu fierté ñëpp mhm. ñu ni Cheikh nga xam ne am gii la ak njenne moom itam di mag ñi nga si jiitu lañ ci kër Serigne Touba mhm. nga ñëw ci Serigne Mor Ndiaye Takar nga xam ne si moom itam Serigne Touba ko seexal et cetera et cetera nga ñëw ci seexi seex Issa Diané yi nga mel ni man nga tudd Ngéngi mën nga tudd feneen ak feneen ak feneen feneen pour ay mbaqit yooyu yëpp ay dëkk la yoo xam ne dëkk histoire la. Mhm. nga ñëw tey jii ñu la yooyu ci commune Ndeye la bokk. donc kon ñun am na loo xam ne si buñ ko buñ ko buñ ko buñ ci góorgóorloo. Mhm. wax dëgg yàlla créer ay musée yoo xam ne si ça part de l'histoire des des Cheikh la Serigne Touba. fii nii teg ko ci Daaru Salaam d'ailleurs mooy suñu programme moo tax ñun bind na lépp ah. Mhm. je fais mais on a tout écrit nga ñëw tey ji ci ci ci ci El Hadj Malick ak ñi xëy na si forole leen jaar ne loolu loolu dañ ko war a jaay population bi xam ko. Mhm. ñu gën a visage bi ñu xoolee ñu changé ko loolu aussi ñu bàyyi boo ñëwee Ngandiouf aussi am na ay dëkk yu mag yu mel ni Cawaan. xam nga yu mel ni mbiri yoo xëy ne si macha allah ñi daan defaral ay Lat Joor ay ay teg ay dàll ña fa te ba léegi nii lan doon liggéey ba léegi ñoo koy liggéey mais malheureusement kenn fasul leen kenn xamu leen kon ñun on a tout yàlla suñu borom jagleel nañu mais nag est-ce que am na nit ñoo xëy si am nañ connaissance am nañ technique hmm. pour lii nelaw ci commune bi ñu mën ko yee te loolu noonu maa ngi ci waxtaan benn sama benn xarit mu ne ma bind leen ngeen invité le ministre de la culture barki dem boo njaay ñëwoon fii Palen dead. mais Palen dead histoire la mais nag Palen Dedd ci biir Kajoor est-ce que l'histoire de Palen Dedd et l'histoire de Mboul c'est comparable mais est-ce que waa Palen Dedd ñu def ba maîtriser seen seen histoire est-ce que ñun def nañ ko ak commune Kajoor non non non defuñu ko moo tax j'invite les maires maire bi wax dëgg yàlla mu ñu ñëw ñu liggéey ci cadre boobu noonu ñu bàyyi préjugé yi xalaat xalaat yaakaar ni mënul nekk si c'est possible yes we can mën na nekk xel moo koy def ak volonté doomi ngañ fi jàng am nay docteur am nay ay leneen ingénieur na leen boole ñu liggéey mais nag malheureusement loolu lépp amee ñu ni ngañ fi ba léegi nii ba léegi nii bokk na ci commune yi gën a euh, sous-développé mm-hmm. ma ñëw ci éducation parce que moo ma gën a ñor mm-hmm. ndax dafa am benn jànkat bu mag danaan dëkk boo ko bëggee yàq bu ko dóori bomb bu ko dóori fital yàqal système éducation maanaam fexeel ba mu jàng Mhm. mais ñun nañoo ngaju ren examen BFM xëy si au niveau national je parle sous le contrôle de Ndiaye résultat yi macha allah fépp loolu des ngaju ngaju ñett nit ñoo xam d'office CM bi trois personnes nga ne daaw noonu pendant presque six ans ngi ni ngaju moo jël ndaare ci ci njàng mhm. mais ku jël ndaare ci njàng mi ay doom raw na say doom déjà course bi yow bokkutoo nga ñëw aussi ci ci ci ci éducation ba léegi boo xoolee vingt six wala vingt sept écoles yi fi nekk ñaar ñoo fi am cycle complet yi des yëpp ñaari classe mu fi am wala ñett classe wala benn enseignant mooy jàngale ñi ba midi ba dix heures mu jàngal ñee wala mu xaaj classe mais est yooyu mën nañ ci continuer. ci compétence transfert la déedéet nag toogee nañ toog ñu waxtaan ñu jéem xool naka la ñuy résoudre problème yi parce que man gëm naa ne amul lu mënta régler fii nii mais ren jii nañu woote assise de l' éducation ñu woo jàngalekat yi woo parents d'élèves yi ñu leen waa résultat yi bon yii ñu dëkkee. lan moo ko waral ñu jéem a xam solution yi ñëw ñëw jëm ko teg ñu ñu doxal ci lu mel noonu kon éducation aussi des na niveau bac bi aussi doomi ngañ fii doon jànge feneen parce que ngañ amagul lycée. CM mhm. la am amagul lycée mais lu tax du am lycée mooy est-ce que xale ñu ngi réussir bu fekkee dix personnes wala trois personnes ñooy am BFEM wax dëgg yàlla kenn dina am lycée. nan fexe ba at mu nekk cinq cinquante personnes voilà am ci BFEM bu defee au moins dans l' avenir ñu mën a programmer. bu dee bu dee ci euh, euh, euh, CMU miiree collectif wax dëgg yàlla miiree fi def nañ aussi ñaari salle de classe loolu aussi ñu leen ci remercier franchement parce que man dama bokk ñi ñoo xëy si. nit ki lu mu la defal rek ci teraanga wala ci mbaaxam jàppal nga gërëm ko ci mais nan gën a bàyyi xel nga ñu dafa doon zone boo xëy si dafa xaw extraordinaire parce que heure bari naa fekk ñu am un deuxième CM parce que ay ay dëkk commune bari am na pratique ñu ngi am deuxième CM ñu ngi programme lycée mais ñun fa nekkan ba léegi jógeguñ fa ci wàllu éducation. loolu parce que xam nga nag dara il faut nga maîtriser ko xam. Mhm. gis nga éducation loo xëy si da nga koy tatone xam boo ko xamul yow maire nga dénk ko koo xëy si xam na ko mhm. mais tey ji boo ñëwee ci je euh, n'ai rien contre les les les commission.

même boo ko manee dama la jox je préfère jox ko ki nga xam si mënu ko mais boo joxee ki mënul du doxal te loolu say doom ngay lor malheureusement te loolu moo moo am kon ci wàllu éducation nga ñëw ci wàllu santé hmm. maa ngi koy faral di wax ni la fi ñu toll nii may wax yow ambulance bu commune Ngandiouf dafa paan ngeen am ci commune benn seen benn maanaam ñi ci des yëpp ay nit comme nii Ngembe dem jënd seen quatre oto def ko ambulance mais comme ni ambulance boo xam ne si c'est c'est réglementaire jógee ministère de la santé benn yoon la mos a am ci commune Ngandiou kon fii may waxe yow nii nii nii nii mën naa ne la la la CM la l'hôpital de Ngandiou n'a pas de poste de santé donc loolu loolu problème la mhm. problème la est-ce que dañu continuer rek di di doxee noonu nga ñëw ci poste de santé bu Xayguña mhm. poste de santé bi quatre dans mhm. ba léegi nii quatre vingt dix quatre vingt ba léegi ñu ngi koy tabax pare na mais ba nii ma wax dañ koo tëj c'est fermé ba léegi maire moo ko àggalee daaw jik mais c'est fermé amul ku fa nekk nga ñëw postante Nguembe c'est la population elle-même ñoom ñoo ko construit à hauteur de plus de cent millions ba pare ba nii fii may waxee ñoom waa Nguembe ñoo jënd seen ambulance benn ñaar ñoo fay infirmier ba mm-hmm. matériel bu fa nekk ñoom ñoo ko fa andi pendant temps état mooy seetaan commune ma ngi seetaan mais est ce que loolu ci la mën a continuer mm-hmm. nga ñëw ci post santé aussi bu Daaru Sam pare mm-hmm. ñoom danoo dem par la ay bonne volonté ñu jëndal leen ambulance yóbbu leen mm-hmm. mais fii may wax yow je le dis OFR indépendance ba léegi état du Sénégal musul jël ambulance bu bees bu am qualité mu dugal ko ci commune Ngandiouf loolu dañu dellusiwaat ci kilifa yi parce que tamit euh, li ñu wax bu lu doyul ñu seddalee hmm. xëy xëy ma xooj hmm. ma xëy jël ma xëy ma xooj ko jël. effectivement est-ce que du ko dirigeant yi te compétence la moom itam santé ba tey. Hmm. ñoom ñoo xaw a naïf. waaw xam nga xam nga njiit da nga koy tànn. njiit dafa am dafa am solo trop trop mais su fekkee tey jii yow euh, état bu joxee xam kenn kenn lay jox ki laaj. wala kii taxaw di défendre. mais bu fekkee yow fi nga toog. bu la ënlee saret sax nga ne alhamdulilah saret bi laa méngool. non ñun foofu boobu nga gis bëgg maanaam nañu bi si ambulance médicalisée beaucoup mucc bani ba ñu jox waa Fann point point e, boobu la ñu jox waa commune Ngandiouf bani ñu jox waa Almadi moom la ñu jox parce que carte d'identité amul benn carte d'identité Sénégal boo xam ne si bu Almadi ak bu nga tant que développement wa Kajoor jëluñu conscience ni xam ni ci Sénégal lañu bokk on est à quelques kilomètres de la capitale boo génnee fii on est à quelques kilomètres de la mer on est ci partie Sénégal lañu bokk mais ñun damay seetlu ne dañu gaaw a doylu trop trop trop mais xolal récemment le ministre de la santé indi na ñaata loolu ay ambulance ak yi mu indi ba Sénégal de Sénégal ba légui le pan pourtant yi Sénégal indi le nga ñu musu am ben benn ambulance la ñu mus andi bo xam ci wa district ño xol ambulance bu gëna a màgget seen gi xam ci jamono yi Abdou Diouf la xuma kañ ñu jox nako ban ko joxé ba légui pan au lieu que mu dimbali ñu waye budget bi am ko si néew sax ambulance bu lek na parce que chaque année nga jënd moteur chaque année nga jënd moteur benen aussi pour pour ñu dem ci wal infrastructure gis nga même boo fi indee ambulance bu baax te yoon yi defarum ko. yoon yi baax problème d'ailleurs am na ambulance yu xëy si moom tout terrain la mën na dem suuf. Hmm. mais aussi ñu programme wax ni état bi ren def na plus de cent millions defaraat yoon yi. Hmm. deux pour cent et quelques bi mais doyul. Hmm. wax dëgg yàlla lii li ñu woote rek la ñuy wuyu parce que bu nee Sénégal émergent. ñu ni wax dëgg yàlla Sénégal dañoo bëgg a dëkk la boo xam ne si prochainement pétrole dafa war a am gaz dafa war pendant ce temps ñun apprendre rek la am ba douze kilomètres boo xëy ni si wax dëgg yàlla at mu ne bu tawee boo xëyee ci suuf ngay jaar loolu aussi wax dëgg yàlla bëgg na ñu génn beneen bi mooy si ngànj dëkk yi dafa dafa sore trop te amul ay yoon ndax boo xoolee Pekes mën nga fa jóge daw quatorze kilomètres ba ñëw ngànjuf jógewaat ngànjuf dem quatorze kilomètres pour dem Kébémer te lépp yaa ngi ci biir koy meeg suuf ngay jaar moo tax PUDC bi ngay wax sànq ma ni teg nañ ay programme yu baax natt nañ fépp tracé nañ mais wax dëgg yàlla de PUDC mën naa ni la Ngandiouf moo ci gën a néew lu am Sénégal di may wax ni je peux mën naa ko argumenté indi ci ay documents à parce que boo xoolee château d'eau nga fi gis ñu tabax ko fi te bënuñ forage château d'eau lañ def pour renforcer forage bi fi nekkal boo ñëwee ci électrification aussi ñaaxeen nga jógee xam nga ni ñaaxeen euh, pratiquement li ngeen àgg cent pour cent et quelques fois noonu mm, mm, ci maxa noonu mais ñun ba léegi nii 50% pour cent on est cent sept villages Mais c'est 60 villages yu xëy na si porte dugg fa ba léegi matériel bi xëy si voilà matériel bi xëy ñoo ngi aussi. Euh, pour allègement travaux ménagères yi aussi foofaat gis nañ suñu bopp franchement quota bi ne am néew na loolu nag man ñi nu jiite laa koy la koy jiña mhm. parce que dafa am ñun fal def leen maire mhm. am ñun fal def leen député mais dama gis ni manam bu dara amee wala état yu Sénégal li ñu sédélé Madame dañu jox ministre maire député maire DG maire léegi nag yow mal sens bu da nga am maire bu du ci mhm. aussi du du aller au front maanaam du xeex. da lay seetaan état xamul rapport de force la xam. Mhm. mooy ma a jox dañ ma koy jox bu ba xam ne combat tous les jeunes la commune nga ci bi ne bu ni seetaan rek li li ñu daan wax moom la ñuy wax te résultat yi mooy war di continuer. kon changement bi nga bëgg daal population bi ñoo ci mën a jàpp ñu fexe ba effectivement li fi nekk ñu jëlee ko fi mooy fal ay xam ne tamit am nañ nga loolu loolu wax nañ ko fépp wax nañ ko fépp damay faral di wax ni développement kenn du la ko defaral gis nga état day def ay ay ay ay ay plan teg ay plan rek la teg de hmm. plan yi nag bu koy def ay nit ñoo koy exécuté nit ñooñu nag relationnel ak ak loxo bu gudd. mais aussi ak force de frappe force de frappe mooy parfois bu boo waree wax non nga ni non hmm. mais yow boo xoolee nga def pratiquement le pouvoir état élection yi jaar yi pouvoir moo ko gañe mais bu fekkee yow fu ne ku dak ku ne ku d'accord ngay d'accord naaw mais kañ kañ ngeen xam ne yow mécontent kañ ngay a a nga xam mm-hmm. nga kaa Kilmaxa gis ne tey mu ci yoonu développement mu ci dama koy faral di wax ma ne Kilmaxa ak ñaaxeen ñoom mën nañu am xel mu dal mm-hmm. parce que am nañ des maires yoo xam ne si Euh, xam nañ les défis de l'heure mmh. mooy xam nañ fi jamono toll xam nañ mondialisation xam nañ ci jamono yi clic et du clac ci lañ toll actuellement mmh. jamono loolu nag boo ko boo ko amee da nga koy exploiter tey malheureusement heureusement ñoom ñoo ngi koy def dem naa ci Thilmakha Moustapha Sylla on est tout temps ñoo ngi jokkoo ci lu bëree bëri mais nga jëf ba léegi malheureusement si duragul boobu chance maanaam ñoom ci sentimentalisme xam nga ci lañuy dox ba léegi nii te wax naa ko ni nooy def fanweeri at te amoo ci résultat gëw ma ne ko am ci résultat cinq ans loolu on le dit gis nga politique Kajoor boo koy wax te di wax discours yi comme ni ko sentiree bu fekkee kii lay déglu amul auteur wala amul xam-xam hmm. mën na jàpp ni yow politique yu njëkk yi sànni xeer hmm. mais ñun bu doon sànni xeer on va le faire publiquement hmm. mais on veut que relater les choses parce que man xam naa lii may wax ci commune nga boo woon la maire moo la gën a xam ni ku mu ëpp problème Sénégal parce que budget bi néew na relation am fa dem démb Ndiaye le maire de de Pire ñëpp gis nañ ko mu dem wuti ay partenaires ñëw indi matériel ay boo si ay ay xaalis bëri la jël jox ko loolu mooy mooy parce que dañ leen ni ñoom ñëpp maire yëpp Sénégal dañ leen ni d'abord léegi am ngeen compétence transfert mhm. léegi man ngeen di génn mais ñu jox leen passeport de service ni leen pour lee leen dox yi mhm. mais mais loolu nag bu la ko joxee outil la ba pare yombal la mi ngay def pour am visa malheureusement nag da nga koy da nga koy exploité. Mhm. mais boo toogee fi nga toog rek sa kër gii di xaar la fekk. wala di nga fa yàgg te dara du ñëw yaay jëli parce que de partenaire da nga koy bind da koy dox maanaam da nga koy motiver. moo tax ma la sur le plan culturel ak sur le plan religieux nan bind li xëy si am nan ko tey jii la la la kii ci wàllu religion. ay dëkk yoo xam ne ay Fès pourquoi pas mën na leen approcher. Mhm. ñu jumelé ak la commune de Ngandiouf. parce que mhm. wax naa leen El Hadj Malick a séjourné mhm. yi xëy na si formé leen yëpp fii la leen di formé. mais loolu bu ñu ko exploité je crois que mën nañ ci am lu bëree bëri bëri bëri ci ay ay bénéfices. voilà euh, wax ñoom ñoo ci wàllu développement. kenn mënu ko wax sa bàyyi li nga xamante ni moo di soxna yi. ndax gis nga itam commune bi def na ci ay jéego. Mm, non moom du ma dama dama damay tourné dama koy tourné complètement euh, développement, ni, moi, pour moi, la jeunesse et les femmes. Puis, mais, il y a un coup de Si vous êtes boîtier, vous allez faire le tour des villages. Vous allez faire une activité pour les gens qui sont liés. Et nous proposons au maire, nous avons une ligne qui fait de l'argent et fait 30 millions, 40 mm. millions, ou 50 millions. Et après, vous avez dit que vous avez fait un résultat. Mm. Est-ce que vous changez la méthode? ñu ko pourquoi pas yow lii na si ngay jënd ay machine wala ay ngay ko hmm. trois millions quatre millions pourquoi pas ñu def ay ferme yoo xëy si xam nga fa ndox hmm. euh, ba pompe yi vision mondiale defal nañ ko ñu mettre ko mu doxaat au moins jigéen ñu forme ay hmm. neuf mois ni toog seen kër defuñu dara ñu mën di liggéey bu dee liggéey seen famille bi mais aussi seen borom kër activité générale de revenu nañ ci mën a surloo. Mm-hmm. beneen bi mooy ci wàllu ndaw ñi maa ngi koy wax ma leen dans bientôt ñoo ngi waaj a de phosphate. Mm-hmm. mais heure bi war na fekk commune bi mu jël ay ndaw fay leen formation ci les métiers du phosphate jàng leen ni ngi dawalee tracteur boo liggéey bu entreprise ñëwee lum ni lii laa soxla ñu ne ko mooy. gox bi def ko mais est ce que bu bu nii rek croiser les bras mm-hmm. entreprise bu ñëwee daal di ko dawal tracteur bu mu yoree ñu ne non kuy bi amul ko tracteur mooy da ngay anticiper. Mhm. Ah, dans 2 ans 3 ans nga xalat li wara a da def ko. lolu lolu aussi il faut que ñu def ko jappale jigen ñi pour ñu mën développer mhm. parce que infrastructure wax nañ ko par lolu état la nañ ci xeex pour état def infrastructure waaye nak état du la def infrastructure paré ñëw le produire naan la léegi production bi jaar na ko sama infrastructure déedéet mhm. production bi ya koy créer te c'est possible ah damay faral di ko dégg mu naan ñu dafa néew doole certes lolu wana a même pas mais dañ la fee teg pour que néew doole googu noonu. maanaam menace boobu nga transformer ko en opportunité. parce que tant que nit ki leader bi amoo capacité obstacle bi tey jii nga xool noo koy dévier rek des nga leadership bi des na. donc kon li mu néew néew néew machine yi ñu jënd mën naa la woon fii ba pare nga filmer ko yii ñu jënd créé ko de vingt trois millions quatre millions ñu teg ko fii Ndiaye mu nga expliqué léegi ni seen machine pratiquement benn yoon lay wala deux fois mais est que loolu. nawet amul nawet amul.

beneen mooy waa vision mondiale ñëwoon nañ fii daal les années quatre vingt mhm. ñu def ay pompe yoo xay ne si ndox mi macha allah pompe yooyu lan moo fa manqué panneau solaire mhm. ak xam nga fun système d'irrigation bu bu cohérent te loolu méttiwul mhm. nga def ko loolu mooy développement te loolu di nga ci régler ñaari problème ah non seulement exode rural bi nga ko régler mooy xale yu jógee fii dem Dakar di jaay écouteur dañuy toog benn ñaareel mooy ce qu'on la sécurité alimentaire da nga koy régler maanaam nit ñi soxlaatuñ dem ba Kébémer melentaan ba di fa jënd ay ay bagage mais benen bi aussi moy moy moy moy moy moy moy li aman ci mbass mi ak ci guerre Ukraine bi ne ci dimbul état du Sénégal parce que do nek rew mo xam ci day ji buñ ñu ba ñi naan di neexal Russie niko pour nga andi suñu céréales xam nga pour ñu mëna dund lolu gis nga ñepp la interpeller té hmm. pourtant on a suivi 306 trois cent six kilomètres carrés yoo fi produire rek machallah yalla mëna ko mëna ko barkel kon li ci des mooy xam-xam. ak volonté bi te pour man loolu moo manque commune nga Diouf. Euh, voilà loo xam mooy phosphate. Mhm. jafe ci commune mhm. ba pare nag mhm. dox gisaguñ ko ci. parce que ay ba fan yii sax yi. ci e-, euh, i financement. loolu ba commune bi yéen yër ngeen yër ngeen mbir mi. ba xam ne nga nag phosphate bi dafa doon question bu complexe boo xam si man pour man. processus bi dañ ko dañ ko dañ ko vrai que xam publique def nañ ko enquête mais ba li solo délai délai population bi exactement les tenants et les aboutissants parce que projet da nga koy population bi xam ko xam système bi lañ d'accord parce que tamit d'accord ci mooy danoo a évaluer tool yi ba pare évaluer aussi dëkkuwaay yi fay leen ba pare ñu soo commencé procédure mais fii may waxe yow population Ngassam déjà encaissé nañ une partie bi xëy na si moom leen war a jox. Mm-hmm. mais imagine nga jox Malick nga war ko jox cinq millions xamul loo koy jox mm-hmm. mais avance nga ko deux millions dëkk bi ni mu méttee mu jël deux millions déjà consommé ko léegi est-ce que Malick moom ëllëg boo ko tegeelee lu mu néew dina mën a am deux millions yi mu la joxoon ne la ko mën a delloo wala déedéet parce que jamono moo toll foofu mais dal leen ni keuy yi lañ leen di fay ba paré euh, ngeen ngeen dem après ñu soga nat souci suuf si te danger bi fi nek moy bu fekkee danoo ex euh, jël barème national ku ne xam na ni fi gisoo fi ay mango gisoo fi ay garab yoo xam ne si am na valeur bari ay kàddu nga fi gis ay sumb loolu c'est minimum par rapport ak barème national te yooyu noonu question la yoo xam ne si il faut ñu wax parce que may faral di wax ne ñun je n'ai rien contre l'administration territoriale mm-hmm. seen liggéey lay def mais ñu à un durée déterminé mun leen topp ñoom seen rythme parce que kenn affecté muy le sous-préfet wala keneen ki fi nekkoon temps la fi def parce que boo xoolee dossier bi Fallou Fall moo commencé mhm. après Sarr ñu ñëw te ji malheureusement Mbaye moo koy continuer est ce que Mbaye dina ko continuer keneen na fi ñëw quatre sous-préfet mën na fee jaar jaar mhm. mais ñun population bi ñoo fi des décisions yi ñun lay engagé tey jii war na fekk ñu un teg un plan d'aménagement boo xam ne si sur le plan environnemental teg benn projet boo xam ne reboisement d'abord avant avant avant mine bi ak après mine bi loolu amul beneen aussi mooy dëkk yi xëy na si jege na ko waxagun ba léegi nii ba xam da leen tuxal dans l'avenir waawe déet te li may ragal mooy je le dis si mooy ba léegi ñu tuxal leen mhm. ñoom ñoo mujj tuxal seen bopp beneen bi mooy dans les di ko wër heure na fekk ñu ñu préparer fa tabax poste santé boo xam ne si au moins dina def première secours yi si conséquences yi am ñu def ko loolu amul mhm. beneen bi aussi mooy li ñu war a accompagner commune bi. parce que danoo waxam ni. siège social bi nga ñu fi lay nekk. mais ba lii may wax ci cadre rek amul benn contrat wala benn convention boo xam ne si c' est écrit noir sur blanc avec l' appui des avocats parce que dañoo faral di wax commune bi dañu fekk mu jël avocat. huissier mhm. amul. ay rek. ñu porté dossier wax yoo xam ne si day def lii ngeen dinaa def lii est ce que bi am na avocat boo xam ne si pare na. pour défendre ko. am benn cabinet boo xam ne sax wala cabinet boo xam ne si dañ ko recruter exclusivement mu régler question yooyu amul te damay faral di wax ni nii ay promesse kan lay engage mooy ki ko gëm mais man ay waxu euh, euh, usine wala waxu ku bëgg a liggéey wala ku bëgg a moom man du ma ci basé parce que kooku lu muy wax mooy naa toog rek parce bu ko see tool ba poussière bi jóg ba pollution sonore bi am. damay ragal ay bégale li ko war au lieu que ñu toxal leen ñoo ñu mujj tox te loolu c'est extrêmement dangereux parce que amul yenn protection bo xam wala gage wala sécurité yo xéñ jox na leen te phosphate bi day mag te phosphate day mag parce que min bi bu ñu xamni bu ñu fatini euh fi bi ñu joxee autorisation jefos mu ñëw amna benen entreprise bo xéñ ci amul autorisation mais day day day day day wër di wër di wër bu dugg ci commune nañ muy AIG Afrique Investment Group te kooku doon amna lu mu bënn dem na mais gis na wala gisul on ne sait pas on ne sait pas parce que ba léegi ni leeragul légui nak li xëy si moy lii de le faire moy nan ko def jiital ci commune Ngandiouf ñu def ndank xam nga souf si aussi Kébémer aussi yaatu fa leen wara a zone la bo xëy na si c'est très prisé parce que Kébémer actuellement day étouffé. Hmm. amul fu mu jëm foofu rek la wara a jëm kon commune bi na profito ci li ko yàlla suñu borom may pour jaare fa une fois encore pour tegu ci yoonu émergence c'est possible hmm. mais li may ragal moy au lieu que. phosphate bi réglé suñu problème mu continué nu dinu lor non seulement suñu xale feebar suñu njàng jaar fay yàqu ba pare ñu bloqué nu baare nu teg fi ay yoon yoo xam ne si on ne sait pas parce que je l'ai dit au maire ñun war nañ def étude voyage d'étude dem Pambal dem Meewan xool jefos fi mu jaar ba xam la mu waxanteeg maire bi est que respecte na ko waaw déet parce que mission de terrain yooyu noonu excessivement important te malheureusement defuñu ko je l'avais dit au ne ko nan def ay mission de terrain dem xool ci dëkk yi xëy si am na Matam les phosphate de Matam de Ndendori ñu dem foofu ça ne coûte rien jël benn oto jour ànd ak ay experts. Mhm. ñu photographier xool environnementaliste yi ñu jëm la jurisprudence ñu am loo xëy si bu ëllëgee lii mu bañ noo dal. comme bañ a loru daal commune bi war na jël sax bis seem. Eh, investir ko ci eh, euh, eh, ci ci ci ci ci ci ci conseil yi xam si ñoom ñoo représente la population. Mm. ñu former leen tàggat leen. Mm. surtout ñu former leen ci wàllu miin. nga xam ne si ëllëg bala ñuy délibérer wala bala ñuy engager commune bi. parce que gis nga li def nii.

te ñuy bay nit ñeu fekk sa kër rek waxtaan ak yow nga nga ne ko waaw wala déet te consulté woo ñi nga war a consulté loolu aussi gis na ni problème bu xam ne commune da koy jall bien vrai que yoo doon jox baat bi mais jox la baat tik tikkul ni que yow rek ya am lotul ya ya am pouvoir ba lo décider rek lay bax parce que bu fekkee li suñu abdoulaha daan wax rek man suma jume ñepp ñëpp ñu ne ko lu tax mu ni bala ma def tal dama waxtaan kon nak kilifa yi njàng la moom la war a ñëwaat di waxtaan ak seen njabot pour bala ñuy lor seen njabot voilà xam naa wax yi mi ngi sori léegi ñëw ci li nga xam ne di wàllu ndaw ñi bala ñuy jeexal. Mm-hmm. Euh, ci wàllu tàggat yaram. Mm-hmm. ci commune bi tam naka la lan la ci def. waaw merci beaucoup ñëw nga ne ci France bu am solo muy la jeunesse ndax euh, jeune commune nga ñu dëgg yàlla boo xoolee programme yi état teg muy DER muy muy FONGIP muy yëpp wax dëgg yàlla euh, quota bi ñu ci am néew noonu lool te ñu néew na nga gis ndaw li liggéey boo xam ci commune nga ñu état moo ko jàppale ba mu am liggéey. ñi fi jaar ñëpp di liggéey ci fonction publique wala privé gi seen njàmbaar bopp moo leen ci dugal. Mm. mais nee na ko xëy na moo ko jàppale. parce que structure yi ñu teg. Mm. duñ ko xam c' est la première fois DER ak ak ak ñëw déplacé ñëw commune Nganj gis nga déplacement boobu njàng lañ ci waroon def. parce que ñoom xool nañ seen i xool nañ seen résultat xam na ni Nganj fi n'est pas présent. Mm-hmm. ñu déplacé ñëw Nganj fekk si leen. pour laaj leen lan mooy expliquer seen absence bi ndax jeunes yi nga ñu impliqué wul déedéet. c'est que dañoo amul la bonne information amuñu benn kuréel boo xam ne si pare na pour euh, pour accueillir leen au niveau de la mairie pour mettre leen en rapport avec avec structure ci wàllu sport bet wax dëgg yàlla commune bi mën naa ne daaw mille neuf cent soixante ba léegi daaw leen football nawetaan yoo xam ne si c'est c'est réglementé xam nga ODCAV ñu am sécurité lépp ba am final bu jàll wax dëgg yàlla at yëpp dañ ko daan def mais dañ ko daan def ci amateurisme moo tax nag ma ñëwee may leen amateurisme bi il faut ñu ko. bu mm-hmm. fekkee bëgg nañu développer il faut ko. ku ku ku koo xam ne si tu es qualifié tu joues ku wul nag tu ne joues mm-hmm. te daaw ma nekk su première expérience ñu réussir ko may lancer un appel ni nawetaan léegi mu ñëw nañu continuer jeunes yi ci liggéey bi ñu rafetal ko teg ko ci discipline ak ci yar ak ci teggin te xam ne sport kat facteur développement la. da ba koy faral di wax nawetaan bu amee non seulement suñu yaay yi nekk ci touche. di jaay ñii beñee ñii gerte loolu noonu c'est de l'économie locale bu ñu ko xeeb oto yi xëy si ñooy jëlee nit ñi supporters yi aussi c'est de l'économie locale da xam ni temps temps bi la la commune bouge. Mhm. da ngay xam de bouger te loolu noonu bu ñu ko xeeb parce que ki xëy si café lay jaay chaque année mu am ci deux wala trois chaque jour kooku au moins man ci gagné nan ko bu ñu ko xañ. Mhm. te loolu noonu bu ñu ko bu ko jàppee ak tabax yi si mën nañ génn ëllëg. parce que man je suis trop dama dama damay rafet njort nii ëllëg mën naa ne un Sadio Mané wala keneen ak keneen te yàlla waxul kenn dara. Hmm. nañ ci rafetal rek tey góorgóorlu si. Euh, yàlla mën na ci def def def ndam loolu waaye lan mën a wax ci wàllu sport bi am hmm. ah, ñu xam naa ñu tënk rek hmm. euh, jeexal hmm. euh, bu nu doon wax tey mu Modou Sow mooy kan wax nañ ko sànq ci tàmbali bi waaye ci li nga xam ne mooy dundinam ak ñu mu nekkal lan ñuy wax waaw may nuyu aussi la présence di saluer la présence de monsieur Malick Diop nga xam ne si moom itam bon responsable kilifa la ci commune bi nekk aussi le président des cadres du mouvement di sumu xarit lool Euh, di ko jaajëfal comme ni ma ko waxee ci Omar Ndiaye rek ñoo ñu ne liggéey ensemble wax dëgg yàlla moo ni mu dundee man sama lépp nga jëf laa ko jox sama jeunesse sama vie euh, di ci ànd nañu responsable ñoo xëy wax dëgg yàlla man bu fekkee mën naa bay def ba léegi nii c'est grâce à ñoom parce que bu fekkee joxe dañuy joxe bu leen déplacé wu yàlla jël suñu bopp dañuy déplacé wu te quelques personnes rek laa ko wax mais su ma woote woon tey jii fii di kenn kenn du fi mais pour heure nawet beeg liggéey bee tax ma ma ma résumé ko nii rek. pour mm. quelque ñoom ñu ci joxe seen témoignage aussi wax joxe parce que dama leen di déglu man dama respecté seen dama naw seen xam parce que nit la ñoo xëy na si walaay asim. Mm-hmm. développement daf leen ñor man nag gis nga ni may dundee nii man su ma nekkee dëkk bi nii laay dundee ak ak la famille man yàlla dafa maa dimb dama dama bëgg njaboot dama bëgg kajoor euh, su ma ñëwee daanaka ëmb temps ci nit ñi laay nekk di wax ak ñoom boo nekkee dakaar liggéey ba weekend jot nga ñëw. nga sa tàng nga consacré ci nit xam nga di dox di wax mais aussi déglu parce que nit ñi il faut nga leen déglu bul xeeb seen xalaat ndax fii koo fi gis parfois day métti gars yi ni ma non léeg-léeg nga gis lu jaaduwul ndax toog ngeen fii ngañu pendant presque six mois amuñu infirmier si six mois on n'a pas d'infirmier nit ñi feneen lay dem di fajoo muy moment yu difficile léeg-léeg gars yi ñëw ne ngañu non da nga leen di bàyyi may leen non il faut que ñu jàpp Mm-hmm. il faut ñu bañ a décourager Xamni jafé jafé jafe yi day bëri mais suñ capacité moy ñu ñu surmonter les obstacles et pour ñu surmonter ko du keneen mo koy def mais c'est Ngandiouf boobu Ngandiouf ñoom ñoo koy def Mort dal en résumé euh bu nekkee ci àll bi nag liggéey ndax ñun ay entrepreneur la ñun ñun ci terrain lay nekk mm-hmm. bon fekkee Dakar bon ci terrain lay nekk dañuy liggéey mm-hmm. mais bu ñëwee fi aussi wax dëgg ci terrain lay nekk di di ànd ak nit ñi di di fond moom di di di leen déglu parce que pour ñoom ñun fi ñu àgg ci tur wala ci politique ñoom ñoo ko teg c'est la population parce que nga préparer élection trois mois dem tey ji nga am cinq conseils presque am mille voix te kuy tudd ci commune nga def léegi mënoo tudd tuddoonu donc loolu nag mille population yi ñi la am nañ yaakaar ba jox la loolu nan lay gis ngay dox ci loo xam si seen intérêt lay doon rek voilà loolu daal mooy résumé. am nga yaakaar ni moom mën ngaa nekk ci ki toog ci bangu maire bi. waaw am na ci yaakaar ah. mhm. euh, te bu ñuy liggéey rek man damay faral di wax rek bu dee jaar-jaar bu dee bëgg aussi bëgg mais aussi bu dee maîtrise terrain. maanaam man boo ma diyan quatre heures du matin ni may yoon bii laa bëgg a génn dëkk bi mën naa la citer cent sept villages non stop dëkk bu ci am courant bu ci amul courant problème boo mën a am. soxlul mu koy bind. bu dee gestion collectivité territoriale tam am nga ci expérience. ko non non koy wax nii bu subaa boo ma interrogé waaw waaw loolu moom loolu moom xam nga kenn mënu koo kenn mënu koo bañ a nit ki. Hmm. parce que dafa daan wax ni dafa mos a ñëw dinaa waa parcelle wala leen ku bëgg a doon candidat dinaa ñaar yëkkati seen loxo mooy leen mais dëkk boo fa juddoo yaroo fa war nga faa mën a am ay ambition mhm. du ñu ko bëggoon seen ambition. Mhm. mais mais nag wax dëgg yàlla jàpp naa ne bu fekkee élection yi suba la du demaat na mu demee woon de parce que nag élection du wax kese moo fay dem de. Mhm. surtout nag une candidature sérieuse parce que ñun je le programme ñun rek ñun ñoo fi def des cent sept villages ñun même le maire am dëkk yooyu Mm. ñun kese je le dis haut et ñoo fi def la des cent sept villages amul dëkk bu demul wax ñu déggunu loolu nag engagement la ak énergie mm-hmm. ak détermination maa ngi wax ñun suñu campagne kii day indi otaam kii indi leneen kii indi leneen ñu ñu ànd dox mm-hmm. te du toog di waxtaan ci ay affaire détail ay xaalis yi nii parce que c'est un engagement citoyen boo xam ne dañ ko doon mm-hmm. def te wax naa ne on a un mouvement très démocratique moo tax ñun ñu concentré wu ci suñu mouvement bañ ci ay parti politique parce que man président man suba mën na xëy wax ne diw mooy sama candidat mais man bu fekkul koo xam ne si wóor na ma ni da ci gis moom sa décision ne m'engage pas xam nga tey laay ñëpp di ma déglu man ama ku ma tënk ci parti wala ci man nga ñu fa ma ñor tey moom nga ñu suba képp koo si candidature boo xam si tey jii gis naa ne intérêt nga ñu mu ngi sew moo du pare na pour jàppale ñu àndal mais képp koo xam ne si nag leneen moo tax a jóg wala nga ñu fi yittelloo wala Sénégal yittelloo moom bul ñëw sax ñu di sax mooy boo fekkonte ni woon euh, teg na candidat moom président wax na ki mu wax. Hmm. ngeen rencontré ko. Hmm. laaj ko nag programme ci. waaw voilà surtout nag. seen ndaw yi xëy si jigéen leen trop. Hmm. ñu ngi leen ubbi seen bunt pour ñu toog waxtaanee développement commune Ngandiouf. Euh, képp ko xëy si daal gis nañ ni. wax lu leer euh, c'est le meilleur. ñun pare nañ pour jàppal waaye ñun tënku woon ci ay. coalition ay fii leen bokk fii leen bokk parce que ñun instant bii fenn rek lañ bokk muy Ngandiouf. ça kii daal en tout cas fii laay fii laay kii ma bàyyi sama gars yi aussi ñëw tam ñu joxe ci seen seen expression voilà kii mooy Omar Ndiaye nekk sama directeur de campagne xam nga ko baax kii aussi c'est Malick Diop nekk euh, au niveau du service de la CCBM nekk fa cadre aussi mooy di cadre ci mouvement bi kenn ci man aussi ñoom itam wax dëgg yàlla lu ma lu ma ànd ah, lu ma nekk rek dañ ci ñëw ñu bàyyi leen aussi ñu joxe ci seen seen seen expression di la gërëm nag baax a baax mm. dinaa lancer un aussi tout les doomu Kayor mm. ñu jàppale la ci sa liggéey bi parce que média dafa am solo ni ni jàppale yeneen média yi nan la ko jàppale te xam naa ni am nga compétence bi am nga capacité te bëgg nga ko te ñun waa Kajoor yëpp incha allah dinañ la jàppale euh, ci sa liggéey ba tey jii lépp lu couverture médiatique ci département Tivaouane rek buñ ko waxee suñ xel dem ci yow. di la jaajëfal bu baax a baax ndax fi nga ma fekk hmm. dafa dafa dafa particulier ci man. Hmm. dëgg yàlla damay wax ni fu man a dem dañ fay daje mais nag tey moom sama kër nga ñëw ci tu es venu chez moi te sama lépp aussi fii la euh, fii lañ juddoo fii lañ yaroo fii lañ màggee te fii rek lañ bëgg di servir aussi Ngandiouf rek lañ bëgg aussi bëgguñu feneen fu dul Ngandiouf dëgg yàlla damay wax di ñun bëgg fu mu mën a am ku ñu doon may lu nekk feneen doon ko jël waaye luy def aussi ñun fii la koy njëkk a tàmbalee wax dëgg yàlla di la jaajëfal bu baax a baax